rafetlu suñu ànd ak yéen ci suñu gal 24 mbokk yi asalaamaaleykum dal leen a jàmm ci biir la jotaayu xibaar ñu ànd ak yéen jukki leen ponk yi ci gën a fës mu di coowal Ousmane Sonko li waral ni ki démb dal di ñu koy déglu ci tribunal bu Ndakaaru dafa dal di lànk ne ki nga xam ne moo di juge d'instruction bu huitième cabinet di Mamadou Seck du ko dal di atte ba waral ñu dal di jëlaat yooyu le dossier jébal ko juge bu premier euh, bu premier cabinet ba waral ni ki tey euh, ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko fas yéene nañu ko déglu fa nga xam ne moom moo di ca tribunal bu Ndakaaru dinañ ci yaatal ci biir xibaar yi ñu wax itam ci décision bi nga xam ne njiitum réewum Sénégal daal dina koy jël ni kii démb daje ak ay autorité yu mag ci biir réew mi maanaam li ñuy wax les autres gradés euh, fa nga xam ne moom moo di ca palais de la république li ko waral moo di naka la saafara li lay coow di coowal Adji Sarr ak Ousmane Sonko ñu gis ne Ousmane Sonko dal dinañuy fësal lu yees ci ab dossier ginnaaw bu ñu waxee ne euh, dañu ko bëggoon euh, signéloo li nga xam ne moom moo di ab protocole euh, buy ñeel wàllum liberté provisoire ngir mu dellu ca këram Ousmane Sonko dal dinay lànk lu ni mel la waral mu dal di lànk nag boobu leen liberté provisoire dinañ ko yaatal ci biir xibaar yi bu ñu sukkandikoo ci suñu naataango yi nga xam ne ñoo ko dal di yaatal kër Antoine Félix jom nga ca xombol dal dinañu koy taal ginnaaw bu ñu gisee ne ndawi xombol ñoom itam dal dinañuy jóg engagé wu ngir xeex lépp loo xam ne moom la yeneen ndaw ci biir réew mii di xeex ci la ñu dem ca këram nga ca ginnaaw ray daal di koy euh, taal ñu wax euh, ci li nga xam ne moom moo di euh, dossier bu Ousmane Sonko bu ñuy sukkandikoo ci kàddu yi maître Abdoulaye Tall mi nga xam ne kenn ci avocat yi Ousmane Sonko la dal daal dinay fësal ne am na leneen lu yees ci dossier bu Ousmane Sonko ndax ki nga xam ne moom moo di doyen des juges daal dinay bind ab lettre assemblée nationale ngir ñu fexewaat yëkkati leneen euh, mu di immunité parlementaire bu Ousmane Sonko li ko waral mu di dañu koy toppee euh, lii nga xam ne moom moo di appel à l'insurrection ginnaaw euh, dernière communiqué bi nga xam ne daal dina koy def ci guddi gi nga xam ne ci bi lañ ci veille bi nga xam ne ci la ko jàppee la mu jot a waxtaanee ak askan wi ci la jàpp ne moom moo waral lii coow lépp ba waral daal dinañuy ubbiwaat beneen ñetteel bu dossier bu jeñeel coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr audition bu Ousmane Sonko daal dinañu koy renvoyé ginnaaw moo waree woon jano tey ak euh, ki nga xam ne moo di juge d'instruction euh, bu premier cabinet euh, ba nekkee ca tribunal bu Ndakaaru mu nekkoon loo xam ne moom moo ko daal di sàkku ñu gis ne coow daal dina cay juddu ci diggante ñi nga xam ne ñoom ñoo di takk deri juge d'instruction ak avocat yu Ousmane Sonko li waral ki nga xam ne moom moo di doyen des juges daal di jël décision ñu renvoyer audition bu Ousmane Sonko ba altine mbokk yi xarit yi lii mooy li gën a fës ci ponk yi ngeen taaxir lu bàkk bi jàll ñu faram fàccee. sunugal 24 point net asalaamaaleykum mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyoo ni ñu leen ko junjee woon ci boppu xibaar yi noonu la ñu koy faram fàccee doore kook uh, coowal Ousmane Sonko li waral démb janowut ak juge d'instruction bu huitième cabinet mu mel ni li olof Njaay naan ku sañul bañ sañ a nangu loolu ñu daal di nemmeeku ci dossier Ousmane Sonko ndax dafa daal di lànk ne uh, ki nga xam ne moom moo di Mamadou sekk di ko àtte ba waral ñu jébal dossier ba juge d'instruction bu premier cabinet ca tribunal bu Ndakaaru di Samba Sall moo fas yéene àtte ki nga xam ne moom moo di Ousmane Ousmane euh, Sonko ñu dal di wax ci décision bi nga xam ne euh, moom la ñuy xaar ci njiitum réewum Sénégal euh, mu mel ni mburoog soow gi mu doon wax ci digganteem ak Idrissa Seck moom la ndaw ñi def jamono ji def seen mburoog soow ba waral ñu dal di xoqatal ñi nga xam ne ñoom ñoo di état bu Sénégal ngir ñu libéré ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ba waral ñu dal di yàq yàq metti ci réewum Sénégal tax njiitum réewum Sénégal dal dinay dajee démb ak les autres gradés li ko waral nag mu di dal di jël ay mesures yu ñeel ci lile coow waaye waaye ba tey fësalaguñu an yan décision la njiitum réewum Sénégal jël ci lile coow ba waral jamono ji kenn ku nekk yaa ngi ci guddi gu bët setagul li ko waral mu di yëf yi dem na ba jéggi dayoo armée bi dal koy wàccee ni kii démb ginnaaw takk der yi nga xam ne ñoo fi nekkoon police ñeneen ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci boobule xeex ngir nag eh, dal di dakkal lile manifestation li jur coow ci réewum Sénégal ñu gis ne boobu ba mënuñu ci dara li waral gouverneur bu Ndakaaru doon sàkkoo ni ki démb ngir ñu wàccee armée bi ay kàddoom daal dinañu koy dégg ndaxte wàcce nañ li nga xam ne moom moo di armée bi ni ki démb askan wi sampab laaj jëmale ci ko jëmale si ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di policier ak gendarme nekkoon uh, ci terrain bi ba depuis boobu ba léegi mu mel ni di nga dox ci mbedd mi koñ ba koñ léegi di gone yi manifester wuy sànni xeer di yàq te doo gis benn yoon benn gendarme wala benn policier uh, bu leen di aaye mu mel ni ñoom itam jamono ji dañoo dal di reculer ngir jëli li nga xam ne moom moo di renfort ñu wax ci li nga xam ne moom moo di kàddu yu ñu yëkkati jëmale ko ci Ousmane Sonko nga xam ne ni ki tey mu nga woon ca tribunal bu Ndakaaru uh, ginnaaw bu ay avocat uh, sàkko woon lu ni mel moom Ousmane Sonko nag dafa daal di lànk li nga xam ne moom moo di uh, protocole bu ñu ko doon signéloo ci lu ñeel wàllum liberté provisoire am la ko waral mu di nee na moom bëggul li nga xam ne moom moo di liberté provisoire boobu nañu ko daal di teg ci yoon li waral muy xeex mu di ñi nga xam ne dañu leen a jàpp otage ci wàllum politique ba waral jamono ji daal dinañuy gis ne Ousmane Sonko kenn du ko auditionné ni ki ak liberté provisoire bi nga xam ne moom la leen lankal ñu dem ca xombol mu di dëkkuwaayub ministre bi ñu denk wàllum biir réew mi di Antoine Félix Diome ginnaaw bu ñuy wax ne moom lu ñuy njàkk mooy njàkk ndaxte moo ñëw daal di euh, yokk ci xar mi karaw li le coow ci moom la juddoo ndaxte moo ñëw di bundu taal ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ak itam di ko tegal ay ndëgg sërëx baskan wi euh, doon wax ginnaaw manifestation yaa ngi jolli ci biir réew mi ne ñu dem ca këram nga ca xombol dal di koy taal mu mel ni euh, goney xombol dal dina ñuy dem ca kër Antoine Félix Diome nga nekkee ca Xombol quartier Guinaw Rail daal di taal këram ga nga xam ne moom moo di këram bu ndaw ba noppi daal di yàqate lépp loo xam ne ay matériel la yu nekkoon ca kër ga. jubali fa nga xam ne moom moo di euh, kër famem nga nekke ca xombal waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo di takk der ya nekkee ca xombal ñoo leen daal di aaye lu ni mel encercler kër ga yokku seenu renfort ngir ñu bañ ñu talaat googule kër ñu wax ci bilan bi nga xam ne moo dal di am euh, depuis coow li tàmbali ci réewum Sénégal ba léegi euh, juróomi nit ñàkk nañu ci seenu bakkan ki nga xam ne moom la ñu dal di boom ni ki démb ca Bignona ak benn mécanicien bi ñu boo ca yëmbal daal di nañuy fësalaat ni ci Parcelles Assainies benn xale bu jigéen euh, la ay samba booy euh, dogalee jamate ko euh, ba mu dal di ñàkk ba kanam li ko waral mu di dañu doon jël li nga xam ne moom moo di téléphone muy samba yi nga xam ne ñoom ñooy raaxaloo ci manifestant yi ak ñaar ñoo xam ne dal nañu leen di fekk ca Auchan bu Kër Massar ñu dal di faatu seen i néew dal di nañu koy gis ni kii tey ci suba. ñu wax ci li nga xam ne moom moo di uh, coowal Adji Sarr ak Ousmane Sonko jinax bu daggee ca xam xamuus daa jege ñag ba mu mel ni uh, waxe olof Njaay jooju mi ngi doog am uh, li nga xam ne moom moo di fu ñu koy waxee ci coowal Ousmane Sonko ak Adji moom mi waral li lee mbaboor te boobu ba léegi kenn tegu ko gët kenn gisul benn yoon li nga xam ne moom moo di takk ndeer bu Adji Sarr bu ñu sukkandikoo ci li nga xam ne moom moo di xibaar yu wér ci coowal Adji Sarr ak nit ñiy laajte fu mu nekk dal dinañuy wax ne altine bi ñu dëkkmal ci 23h15. 2015 moom Adji Sarr dina quitté ci réew mii di Sénégal ngir ñu yóbbu ko ci réew yi tugal yi waaye ba tey waxaguñu ana man réew la ñu koy dal di yóbbu ngir làq ji ko foofu ñeneen yi wut fu ñu làq mu di waaye RFM gi nga xam ne ni ki démb dal dina ñuy dem uh, ci seen locaux yi saccagé ko ba noppi dal di fa yàqate ay matériel yu bare bari bokk na ci oto yi nga xam ne daal dinañu ko fay taal mu di ñetti oto li jaaxal ñi nga xam ne ñoo moom yooyu le oto laata euh, xale yi di taal oto yi dañoo dal di ubbi oto ya forcé ko jël fa lépp loo xam ne xaalis la yenn bagage yi ak li nga xam ne moom moo di euh, batterie oto yi ba noppi soog a taal yooyu le oto ñu ñaawlu ko ni ki tey euh, ci suba ci li nga xam ne moom moo di info matin bi nga xam ne moom la ñuy amal la ñu ñaawlu nag mu di samba yi nga xam ne dañoo bokk ci manifestation yi tey itam di tàllal loxo ndaw ñi ñu daal di dakkal nga xam ne moom moo di yooyu les manifestation ndax li nga xam ne moom moo di alalu réew mii la ñuy taal fi nga xam ne moom moo di mairie bu parcelle daal dina ñu ngi koy taalaat tey démb ci guddi mu doon yooyu le xibaar yoo xam ne kenn ku ci nekk ci ñi fare ci njiitum réewum Sénégal wala li nga xam ne moom la état bi moom ñoom ñi ngi jéem a xool ndaka la ñuy def ba mucc ci li la coow ndax yooyu la réer la xale yi dal di ciblé ca mairie bu parcelle dal dina ñuy dem euh, saccagé mairie ba ba noppi dal di yàq lépp loo xam ne ay matériel la yu nekkoon foofu taal fa ñetti oto fa nga xam ne fa la ñu dencoon ab ceeb dal dina ñu koy jël jaxase ko ak li nga xam ne moo di ba fa nekkoon taal ko kenn ku ci nekk diri la nga mën a diri yóbbu sa kër ñu dem ca Sonatel bu Parcelles Assainies dara nekkatu fa lépp ab doom la li ko waral mu di ndaw ñi ni ki démb ci guddi dañu fa def ak congu dal moom moo di Sonatel bu euh, Parcelles Assainies bi nekk nekkee ci wet wetu Soprim ñoom nag ba ñuy laata taal lay Sonatel jël nañ lépp loo xam ne moo fa nekkoon mu di eh, ci ay matériel téléphone portable ordinateur yi nga xam ne moom moo nekkoon jumtukaay yi nga xam ne moom la ñu doon liggéeyee ca boobule Sonatel ak la nga xam ne moom moo fa nekkoon lépp ba noppi daal di jaxase bureau yo daal di koy taal ba waral jamono ji daal dinañuy xëy def boobule constat eh, ca fa nga xam ne moom moo di Soprim ngir xam eh, bilan ba ndaka la tollu ñu dem ca Diourbel ca tribunal bu Diourbel salle audience ba daal dinañu koy taal moom itam ni kiy démb ci guddi bu ñuy sukkandikoo ci libération euh, la ñuy sàkku euh, la ñuy euh, ñaawlu ba waral ñu daal di taal la nga xam ne moom moo di tribunal bu Diourbel mu di ñu libéré seen professeur d'économie bi di Abdoulaye Thomas fay mi nga xam ne bokk na ci Pastef jiite li nga xam ne moom moo di Pastef ba nekkee ca Kaffrine ak itam li nga xam ne moom moo di coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr li ginnaaw seen coowal professeur boobu xam moom moo di Ousmane Sonko ñu des ci mbiru Ousmane Sonko ak Adji Sarr avocat bii di maître Abdoulaye Tall daal dinay indi leneen lu yees ci boobulee dossier mu mel ni daal dinañu ubbiwaat leneen loo xam ne ñi ngi koy toppee Ousmane Sonko mu di ñetteeli tuuma yoo xam ne ñi ngi koy gàll ci am ndoddam ndax nee na ki nga xam ne moom moo di doyen des juges daal dina yónnee ab lettre ci assemblée nationale ngir ñu uh, yëkkatiwaat li nga xam ne moom moo di mbalaanu kiiraay bu Ousmane Sonko li ñu koy toppee mu di appel à l'insurrection ndax nee nañ uh, ci communiqué communiqué bi nga xam ne moom la mujjee def ci veille bi ñu koy teg loxo ngir woo ndaw ñi ci li nga xam ne moom moo di fitna looloo waral ñu daal di ubbiwaat euh, beneen dossier ngir yëkkati ay tuuma teg ko ci ndoddum Ousmane euh, Sonko xuloo bu méttee métti moo am ni ki tey ca tribunal bu Ndakaaru ci euh, diggante avocat yu Ousmane Sonko yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di takk der yi doyen des juges ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yor dossier bu Ousmane Sonko li ko waral moo di dañu leen a lankaloon ngir ñu daal di jëfandikoo seen i ci seen biir ndaxte ñi nga xam ne ñoo ñoo di avocat yi Ousmane Ousmane Sonko yi dañu doon filmente ñu dal di leen koy lankal li lee coow nag dal di dem ba mujjee ëpp ay loxo ñi nga xam ne ñoom ñoo di avocat yi amatuñu woon accès ci ki nga xam ne moom moo di seen client ñu doon leen lankal ngir ñu janoo ak ki nga xam ne moom moo di doyen des juges ak ki nga xam ne moom moo war a atte Ousmane Sonko du juge d'instruction bu premier cabinet ba waral euh, ki nga xam ne moom moo di avocat kenn ci avocat yi Ousmane Sonko yi dal dinay fësal ne atte bi ñu waroon atte Ousmane Sonko maanaam auditionné ko ngir déglu déglu ko tey ca tribunal bu ndakaaru daldi nañu koy renvoyé ba altine bi ñu dëkk mal ñu des ci lile coow dal dinay jur beneen jéye ginnaaw ñi ci ñàkk seen bakkan am na ci ndaw ñoo xam ne am nañ ci ay gaañu gaañu yu méttee métti mu di Cheikh Diouf mi nga xam ne ab marchand ambulant la lu fekkee woon lii la coow ci àllarba bi ñu weesu moom nag dañu ko dal di sànni li nga xam ne moom moo di ab lacrymogène ci loxo bi ba ñu mujjee ci dagg li nga xam ne moom moo di loxo bi bu ñu xoolee moom seex Diouf moom mu jamono ji dal nay ñàkk lépp loo xam ne espoir la ci ak dundam ma ngay yëkkati ay kàddu ba rongoñam dal dënam ne moom moo doon jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay famem dafa wàccoon doon di ñibbi këram mësul bokk ci loolu la coow ndaxte dooleem euh, matewu ko ba waral mu demoon liggéey yi ngir jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay rakkam ci la ko dóoree li nga xam ne moom moo di lacrymogène boobu ci loxo ba jamono ji mu dal di ciy ñàkk loxo doon loxoom doon loo xam ne mi ngi koy euh, ñaawlu leneen li ñuy ñaawlu te ñi koy ñaawlu di avocat yi Ousmane Sonko yi ak ki nga xam moom moo di ab responsable nekk itam ku jege Ousmane Sonko di El Hadji Malick Ndiaye euh, bu Pastef dal dinay àddu jëmale ci li nga xam ne moom la def ni ki dem ci guddi ba 4 h 45 ci fajar di jot mu di dañoo dem fa nga xam ne moo di section des recherches daal di fay jëli te kenn xamul woon fan la ñu ko yóbbu ci ki nga xam ne moom moo di maître Clédor li daal dinay génn indi ay leeral ci ndaka la fa demee nee na dem na ni ki tey ci suba ci 7 ba muy jot ngir dem seeti ji ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ginnaaw audience bi 11 heures ci suba la woon ngir dem nag waxtaan ak moom ndax Ousmane Sonko moo sàkk woon mu teel a ñëw ñu ànd waaye ba mu demee daal dinay wër fépp foo xam ne yaakaaroon Ousmane Sonko ma nga fa ca section des recherches ginnaaw si lay bàggante fi nga xam ne moo di section de recherches ak ca tribunal bu Ndakaaru waaye mënul woon teg bët ki nga xam ne moom moo di euh, Ousmane Sonko te xamul woon fan lañ ko yóbbu mbokk yi xarit yi lii la ñu leen indiloon ci ay xibaar di leen jaajëfal ci tànneef gi ko lu tegi ak lu gi ngeen ñuy teewlu euh, ñu leen di wax way leen di topp suñu programme ci biir Sunugal 24 di leen jox dig daje ëllëg incha allah euh, ci yeneen i xibaar. ne xam na ni yàlla daal bind te yemalewul am na ñu matal am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 ne góor ngóoraa tax